Aïcha, comme d'habitude, c'est votre gazé acteur qui disait, dit Mahfouz, que je salue de passage, comme d'habitude, qui m'a laissé donner l'opportunité de pouvoir tourner librement, friment en roi. Ouais. C'est le boss. Nous sommes bégé bu baaxa baax. Bu baaxa baax. Ouais, mi ngi non, caméra cachée bi ni nak dañuy man ak roi comme étant des policiers civils comme d'habitude, tu vois. Mhm. Bu ñu wàccee taf dañuy ñëw laaj la ba xam ñaxu nga wala ñaxu bu fekkee ñaxu amna na benn auto boo xam des ni mi ngi circulé moom la ñuy woo ci suñ service la ñu ñàkk la vite fait ci pet dinañ ko nangu wala duñ ko nangu ñu ngi xool dina am ñoo xamante si nii nag dinañ tiit ba ni la jël nañ ñaari vaccin yoo xamante si nii bokkuñu dose on vous laisse regarder su baaxee bang, dang keng keng reng reng baraka problème il a quel euh, quel est son problème Euh, Il s'est vacciné Je sais pas. Tu t'es vacciné Tu t'es pas vacciné Pourquoi Parce que je n'ai pas fait par rapport avec le vaccin. Quoi Parle plus fort, moi je t'entends mal. Qu'est-ce que tu voulais Tu t'es vacciné Non, je n'ai pas vacciné. Je te montre, tu pas vacciné. on, a quatre véhicules à nos dispositions pour, pour, euh, vacciner les gens qui marchent pour, euh, qui n'ont pas pris pas pris de vaccin quoi. Ça c'est quoi Carte professionnelle de quoi État civil État civil. Vous faites quoi Je fais comme commune qui Collecteur Collecteur de quoi C'est ta tu veux me ça Hein Maman dit agent municipal, fonction, carte professionnelle république. Ok, d'accord, tu parles alors. Mais ça n'a rien à voir. Parce que y a déjà, carte bingi me y a un vaccin Parce que si état civil est lié, il y a un vaccin. Il y a un vaccin. Ouais. mais xam nga lu tax loolu. parce que ah. dañuy demoon village bu ñu demee village. bu ñu ñibbisee. Ah. ñu ngi waajal vacciné mais instant yi pareguñu quoi parce que ñun dañuy. mais ñun maanaam wax ji lu koy guddal ak lu koy gàttal dañoo amoon quatre véhicules yoo xam ne si à notre disposition ñu ngi nekk di circuler ji li mbay. am na drone sax yu ñuy topp. ci kaw loolu noonu dañuy woo benn ñu jàdd nii ci ruq bi nga jël ko nga dem ak sa carte quoi moo gën a wóor. joxal la sa carte bii moo gën a wóor quoi bii ko état civil nga nekk xam nga comme ça tu vas servir d'exemple aux autres quoi. pour mu vacciner ko benn waaw. fan moo koy vacciner quatre véhicules ñoo ngi nekk di tourner ñun ñii ñoo nekk secteur bi quoi am na yeneen yoo xam des nii moom il suffit waaw coup de fil lay di après ñu ñëw ñu vaccinal bu baaxee ñu jàdd ci ruq bi ñu dem vite fait. non jarul woote mën nga ñëw ñu dem jarul woote yow jarul ngay woote bu ñu la vacciné ba jox na sa carte mën nga woote. sama patron nee na patron am lay woo. moo la waroon vacciné Tapha moo la waroon vacciné. waaw loolu la ma waxoon. waaw mais kaay garaaw léegi yow. pour maanaam Diouf Sarr su ñëwee foofu après ñu vacciné la. Diouf Sarr pour Diouf Sarr. suñu ñëwee foofu pour ñu mën a vacciner parce que dañu am foofu ay éléments yi nga xamante ñoom ñoo leen di war a vacciner man ba ñu vacciner bi waaw mais moom loolu la ma wax yéen élément Diouf Sarr yéen a war a njëkk a vacciner wu waaw loolu la ma wax na parce que demee la waxoon lundi la ma léegi yow kañ tam vacciner wu boo demee ci ñoom Diouf Sarr nga leen vacciner nañ ma ci mbedd mi déjà yow li ngay wax déjà xamoo ko ce qui veut dire que Rien ne nous prouve que ce que tu dis, c'est la Viens avec nous, viens avec viens, nous. Viens, viens, viens, viens, viens, viens, monsieur. Viens, Viens, daw mais dinañ la ji. caméra kese lañ doon tourné. c'était juste une caméra kese xam nga foo lañ doon def xam nga waaw mi ngi noonu just for laugh. juste pour rire mais tamit yéen comme état civil ngeen nekk. ngeen a war a vacciné wu parce que kuy digle cangaay na fekk nga set. xamal ma la. yow waroo di dox nii sans pour autant nga ñàkk a xam nga. vacciné wu pour te protéger la. ak xam nga protéger les autres quoi. parce que la eh, aider à ce que wa nga baña transmettre gars yi tamit fièvre bu fekké nek na ci yow mais boko ko mënee def nga def ko tay utiliser gel sol sa masque mom mom lamu ko def mi ngi la yeah, ñi ngi jégal nak ci dérangement bi dégg cool la jaajo pour yool xolo téye leen foofu avancé le di ñëwul ba ci garab bi ni nga téye fof quoi taxawal rek taxawal rek okay baax

lu tax vacciné woo. demoon nañ foo leen jógee géej. taxawal ni soxna si yow dama lay laaj. dama lay kii an sa carte yow. mais vacciné woo taxawal nii. léegi yéen ok d'accord. léegi yéen lan moo tax yéen yéen Solo len sen masque ngeen nek ba tim ñu sol sen masque ba paré en plus tamit ngeen ni vacciné wo len quoi de marché librement soxna see yow lay waxal nga ni sa masque dafa yeen lan motax tax ngeen bàyyi masque ci saag bi ba ñew ba fi di kii geej ngeen nekkoon léegi bo len nekké geej do len sol seen masque da ngay da ngay da ngay fat mhm. mot mais nga téye sa masque sax sa loxo yor ko sa saag mais ba pare yéen ngeen ànd di dox a 3 vous étiez quatre ba ma leen repéré non non trois lañ dans ce cas on va vous embarquer parce que yéen yéen yéen ni ngeen di man man bi désolé désolé. mais c'était juste une caméra cachée. <laughs> Eh, Kai, Kai. Belum, Kai. Dari, Kai. Dari. Kenapa? Dah tak vaksin dulu, bapak. Kamu only kat vaksin dulu. Esko vaksin dulu. Désolé, désolé. Today's using camera kasi sesi. xam nga waaw l'élément de Mahfouz maa ngi nii tey maa leen lu ma doon xaaral waa ji dégg booy non mais garaawul <laughs> xool ko mi laqatu ko bébé nee na vacciné wu moom fàtte na mu maam Diarra maam Diarra waay waay maam Diarra ñu jégalu rek désolé wa élève la ñu ok jaay jëf

fii ne da ngay <laughs> non gars yi am naa gëléem mi ngi gànnaar. kañ dem dóoraat la beneen dose rek parce que loolu lañ nekk di def sensibilisation boobu. baax na pour ñu dóor la beneen dose. non garaawul. mais d'accord nga ñu dóoraat la beneen. non ragal moo vacciné man ñaar laa vacciné ñaar laa vacciné. ban ak ban. AstraZeneca ak ak Johnson bi. <laughs> ñaata vacciné wu yan docteur ñoo la vacciné loolu. Pikine laa vacciné wu ban ban ban ban kii laa bëgg ak AstraZeneca laa vacciné. ak Johnson ak Johnson bu mujj. ñaar yooyu yëpp mi ngi ci yaram. ñaar yëpp nga koy dajale. non xam man bu may liggéey moo tax. mais dañu man naa vacciné wu. <laughs> waaw moo tax garab yi xam xam Pikine laa dëkk dama fi ñëwoon fii nii par hasard nii rek. moo tax grand AstraZeneca ak ah, Johnson Johnson moo nekk sa yaram. moo nekk sama yaram mais dañu ma vacciné rek. parce que ku la vacciné lool. Euh, fee laa vacciné wul kii moom. mën nañ dem foofu c'est possible ah. parce que dañuy dem enquête parce que li nga waxee ni dafa grave. crime la de. waaw parce que man parce que man am naa carnet bu ñu déggee Pikine sax mën naa jël sama carnet. non non waxatuma carnet instant bii nii léegi dama lay wax. il faut ñu dem fi ñu la vacciné yow. Aréna Tour Aréna Tour bu nekk Pikine laa vacciné wu. Aréna Tour. arène bi ñuy bëree bu yow xanaa gars yi mbër lañ la tegoon. non non parce que dañu non non affaire bi parce que loolu moom ci yaramu mbër rek la yaramu mbër rek. a ah AstraZeneca Johnson inna lillah. yow faaw ñu chef médecin boobu faa ñu wari ko de. moom kay oto bi ñoo ñu yóbbaale ko dañ ñu. te li ma leer ba leer mooy Père Madior deful loolu. parce que permanent jor jangolin lolu quoi après ñaar vaccin non sentir wa yam parce dima yo carré bo xamné ni ça va parce arena mo mo vacciner mo problème mom wax deug ya permanent jor mom du vacciner lolu té mom moñu waccé sur le terrain am problème bu len bëggé rek ñu dem parce que mais yow nanguwaat nga jëlaat benen man ragaluma vaccin man man man piqué bañ nak wala caméra caché lañ doon tourner mais Johnson Johnson, Johnson, Johnson AstraZeneca du dem ci yaram dari kai la ilaha illallah dari kai nono dari dari kai bi nee ñaari vaccin la dari nena AstraZeneca lañ ko dóor ak Johnson Johnson Arena lañ ko doré mané ko xana yow dañ la jaawale mbeuri wala num mu <laughs> non du ma mbër mais mi ngi merci